wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi yàlla nañu yàlla defal ak gindeeku yàlla na fopp suñ xol yi gindi ko ñu ci yoonu njub bindu tay bi ñaari mbir ñoo ko tax ba ci njëkk mooy leeral ne gindeeku xol day kooku yàlla rekk moo koy def moo ko man nit ki nag mën na laa gindi teg la ci yoonu njub ci leeralal la ko leeralal la la baax ba nga xam ko leeralal la la bon ba nga xam ko waaye nag fop sa xol bi moom bëgg loola loola jëm loola ci ba teg ci teg ko ci kooku yàllaa koy def loolu moom la ñu tudde hidaayatu tawfiq mooy gindeeku gi nga xam ne yàlla da lay dëppaleeg def la baax gëm la baax masalan bokk na ca yàlla defal la tawfiq ba nga am wéetal yàlla kooku yàlla rek ko man yàlla defal la ak jàppandal ba nga ba ngay julli di woor si bi fees de gëm yàlla li baax yëpp nga bëgg ko kooku yàlla koy def ci loxo yàlla rek la nekk nit nag lu mu la bëggal tuyaaba tuyaaba mënula ko defal beneen mbir bi nga xam ne danañ ko jàngat tey moo di ne day ñu bari li leen tee am gindeeku googu ba mën a wéetali yàlla ba am ngërëmal yàlla lu dara lu dul topp ay maam ak i àndandoo yu bon lii ñu wax nii benn xadis moo ñu koy jàngal xadis bi mi ngi ci saxiixul Buxaari yi moo di ne Abu Taalib di bàyyi tax ci yonente bi sallallahu alayhi wa moom mook papa yonente bi sallallahu alayhi wa ñoo bokk baay tax mooy ki bokk ak sa papa moom moo yar yonent bi sonnoon lool ci moom lu ne mu daj ko ci moom banga nga xam ni yenn mbugal yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi ko xeetam daan teg sax mook moom ñoo ko daan bokk xiif na ngir yonent bi sallallahu alayhi wa xas nañ ko ngir yonent bi sallallahu alayhi wa lu ne dal na ko ngir aar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko teg waaye leen rek ko manqué woon mooy moom daal dane woon du dugg ci diine lislaam nga xam ne li muy aar yonent bi yépp ngir aw askan la koy aare comme que kii doomam la daal moom du bàyyi doomam mukk kenn di ko lor waaye nag pas-pas bi yonent bi indi moom dane a ah, lii ka daawut ak yi maam yi nekkoon parce que kii muy wax mooy doo ragal ku dul yàlla doo yaakaar ku yàlla doo ñaan ku yàlla doo dimbali ko ci ku yàlla so xol bi ci yàlla nga koy wékk yii ko fi defal yëpp danga koy weddi ah te ñun nag wax dëgg yàlla daa doon na ca maam ya moo di ne nag fii daal dañ fee am ay xërëm yoo xam ne yooyu moom fu njaar nag di leen yaakaar aka ragal wékk suñu xol yeeg di muslu ci ñoom yooyu moom fu njaar def ko ak di leen rendel ak yu mel noonu kon moom musta lor yonente bi sallallahu alayhi wasallam musta ànd it ci ku koy lor nangu wane ne sax diine yonente bi sallallahu alayhi wasallam diine ju rafet la moo tax am na bayit wum koy waxe di wane ne diine yonente bii day naan wala qad alimtu bi anna diina muhammadin min xayri adyaanil bariyati diina nee na man de xam naa ne diine Muhammad ji sallallahu alayhi wa ci diine yi gën ci diine yi ci la bokk kon nangu na ko da ci daan encouragé sax waaye problème mooy moom la maamam nekkoon daal moom mënu ko bàyyi yonent bi jéem na lu ne waaye nag mënu ko caa jële abu taalib moom moom mooy papay ali ibnu abi taalib radiallahu anhu suñu papa ali ibnu abi taalib baayam mii mooy abu taalib waaye ba ni muy génn àdduna ma nga des rek ci diine yooya léegi nag bi muy faatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwal ko ngir ah di def nag liñ naan sànni tàccoom mooy ñëwaat waxaat balaa muy faatu xañ na nag bii moom mu jariñ nee na kii nettali xadis bi muy ibnul musayab nee na ñëwee ma fa fekk abdullah ibnu abi umayya ak abu jahal fekk na fa ñaar ñi muy abdullah ibnu abi umayya ak abu jahal ñaar ñooñu ci gaay yooyu nga xam ne ci pas-pas yu bokkaale gi ci lañ nekk abu jahlin ko xam moom moo ko jiite woon daanaka moo ko jiite woon moo jiite woon yéefar yi fa qaala lahu yaa am qul laa ilaha illa allah kalimatan uxaaju biha inda allah yonent bi ne yow sama baay tax ay waay te ngaa wax genn kàddu gi rek muy laa ilaha illa allah waxal ne man lépp lu ñuy jaamu lu dul yàlla dañaa ca ba set ca wecc yàlla rek lay jaamu bu ko defee mu doon benn baat boo xam ne bu ma demee ca kanam yàlla ma man cee ma man la ci layal ne ah yàlla kii kat tase wut ak yow ci bokkaale gëmoon na la ci wéetal yàlla la tase ak yow ndax weddi woon na lépp lu ñuy jaam lu dul yow ci dernier dundam naka mu ko wax loolu ñaari gaa yooyu fa nekk muy abdullah ibn abi umaya abu jahlin daan ne ko atarxabu an millati abdil muttalib ni ko wax abu taalib ne ko yow ah léegi yow daal da dangaa da nga bëgg génn ci li sa maam nekkoon abdul muttalib mooy maamam mooy baay eh, mooy mooy mooy baayam mooy bàyyi abu taalib ko danga bëgg a génn léegi yow ci sa diine yi bàyyi yow lii nga xam ne ci la sa bàyyi nekkoon nga bëgg koo nga bëgg ko fee bàyyi yonent bi salaa salaam daal di baamu lam waxoon ne ko ay waay te wax ka baat bii rek bu ko defee ma man ci sukkandiku balaa yàlla ca yàlla ñele yi daal di lañ waxoon ne ko atarxabu an millati abdul muttalib yow da nga bëgg bàyyi li fi sa bàyyi nekkoon abu taalib ah moom it foofu dese naa utiliser xelam xam ne ñii lii ñu naan ko moom la sa yi nekkoon mais bàyyi teguñ ko woon ci ay firnde ci ak réer lañ nekkoon ñoom bàyyooya baa yooyee dañ daan jaamu loo xam ne mënu leen a jariñ mënu leen a dañ daan ñaan ab bant kon au mu dellu si xelam xool lii ko yonent bi wax mu topp ko waaye daal mu jiital sentiment ak bañ ñu naan dangaa ragal bañ ñu koy ŋàññeek naan daa bàyyi bay bëgg a faatu a génn xalaat yu bari yooyu daal mu mujj wax ne moom mi ngi faatu ci lii Abdul Muttalib nekkoon moom daal ci loolu la faatu ci loolu lay nekk mu bañ a wax laa ilaha ba ca loola la faatoo ah bi mu defee loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la astaghfiranna laka maalam unha anka man de danaa la jéggalul li feek ñu koy aaye fa anzala allahu azza wa jal maa kaana linnabii walladina aamanuu an yastaxfiruu lilmushrikin walaw kaanu uli qurba min baadi ma tabayyana lahum annahum asxaabul jahim yàlla daal di wàccee ne aaya bii ne du dagan mukk ci yonent wala sax ci ñi gëm yàlla ñuy jéggalul kuy bokkaale doonte sax kooka dafa doon dafa bokk ci ñi leen gën ñi leen jege mooy comme mu doon sa baay sa yaay sa maam sa nijaay sa yépp ginnaaw ba mu la leeree ne moom ci waa sawara la bokk mooy ci ak bokkaale la faatu kooku moom dëgënatul sax nga di ko jéggulul ci même xadis bi mu ne wa anzala allahu fi abi taalibin innaka la tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bilmuhtadin mu ne yàlla daal di wàccee ci abu taalib aaya bii mooy ni wax yonent bi ne ko innaka laa tahdi man ahbabta yow de mënoo gindi ku la wala walakin allaha yahdi man yasha waaye yàlla mooy gindi ku ko soob wa huwa aalamu bil muhtadin yàlla de moo gën a xam ñi nga xam ne ñooy gindeeku xadis bi kon ay mbir yu bari lañ ci jariñoo ba ci njëkk moo di ne ak gindeeku nekkul ci loxob yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi kon yàgg naa bëgg ay nit yu dugg ci lislaam ñooña dugguñ ci lislaam ba faatu ca lañ nekk xam nga ne mos am sa baay tax boo xam ne nii la la bëggee nii la sonne ci yow boo sañoon ah, mu dugg àjjana waaye fekk nag yàlla dogalul lool ci moom mënu koo gindi moom yonent bi sallallahu ndax mbiram nekkul gindeeku googu nekkul ci loxoom moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye léegi nag ku la mënta gindi ndax mën na laa dugal àjjana déedéet loolu moom leer na ki nga xam ne yoon wi jëm àjjana mënu la cee teg ndax mën na laa dugal loolu kon lu leer la ne kon ci loxob yonent bi sallallahu ci loxob yàlla la nekk moo tax mu ne walakin allah yahdi man yasha yàlla mooy gindi ko soob looloo tax wéetal yàlla lii ni ay firndeem leere ci alquran ak sunna léeg-léeg nga wax ko nit mu yomb lool mu nangu ko ndax yàllaa ko nam ma gindi waaye léeg-léeg nga wax ko nit te na muy leere aaya yeeg xadis yi boo ko ci doon indil ñaar fukk lii Abu Taalib wax rek la lay wax man daal maa ci la yi nekkoon man daal man yi ngay wax xawma ci dara man la sama baay nekkoon laa nekk lay wow lay indi teg ci attan xeex attan caa dee attan cee dogoog yow attan la cee bañ lu ne te fekk yow andil nga ko ci xeetu lay yoo xam ne tuuti xel rek bu ko utilisé woon un pour cent ci xelam rek dana xam ne lii ngay wax dëgg la mais tey lank nekk ca lam nekk ba faatu ca te fekk ay bokkaale la mar litaali comme lii daal Abu Talib fii kon xol yi yàlla moo ko yor moom mooy gindi xol ba ko soob xol bu mu bëgg nag ah euh, goo xam ne neexu ko mu mu mu xañ la gindeeku googu yàlla nañu yàlla musal ci muñu di ñu xañ ak gindeeku yàlla na yàlla ubbi suñ xol yi gindi ñu teg ñu ci wéetal yàlla yonent bi moom lim man mooy jàngale moom la doon def giirub dundam moo tax yàlla ne ko wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim yow day da ngay gindee mooy di tegtale yoon wu wi waaw loolu moom man nga ko mooy gindi leeral loolu ma man nga ko di leeral nit ñi li yàlla wax li ya lim bëgg lim bañ waaye nag fab leen teg leen ci kaw yoon wi kooku yàllaa koy def beneen mbir ba moo di ne ñoom ñii yonente bi sallallahu alayhi wa doon woo ñoom xamoon nañ luy maanaa laa ilaha illallah xamoon nañ ne lu ñuy wax ci rek mu jeex waaye xamoon nañ ne ab pas-pas la maa mbir la boo xam ne boo ko waxee day am yoo xam ne sa xol mënatu koo gëm da nga koy résité da nga koy bañ sori ko loolu mooy lan mooy lépp luy bokkaale da nga koy bañ sori ko ànd ak ne woon du ñuy jullit de waaye xamoon nañ loolu looloo taxoon ñu koy bañ a wax féeg nangu wuñ ko léegi nag nga gis ab jullit bu sañ a taxaw moom di wax laa ilaha illallah suba ngoon sawar ci lool ci wax ko waaye bokkaale gi moom doo ko laal fenn foo ko laalee rek xol ba jug wala mu jug attaqué la kon mi ngi wax laa ilaha illallah mais téewul pas-pas bi laa ilaha illallah di dégager moom la gëm maanaam li muy wax gëmu ko ci làmmiñ rek la koy wax ñële nag ñoom nanguwuñ woon a wax siinu làmmiñ luñ gëmul parce que boo ne laa ilaha illallah mooy lépp luy bokkaale weddi nga ko dégager nga ko bëggatoo ko sori nga cee dañ nga ca ba set ca wecc moo tax ñoom ñu lànkoon parce que ñoom mënuñ koo wax ba pare di dellu di yaakaaru xërëm mbaa ñuy ragalu xërëm mbaa ñuy ñaanu xiram mbaa ñuy wakkirlu ci xiram mbaa ñu koy rendil ñoom xamoon nañ lool looloo taxoon ñu bañ ko biñ demee nag ba nga xam ne nag ab jullit day mën a wax laa ilaha laa ba pare taxaw di def lu ko neex di wax lu ko neex di ñaan lu dul yàlla di ra yaakaar lu dul yàlla di ragal lu dul yàlla di wakkirlu ci lu dul yàlla di rendil lu dul yàlla di def njabar lu ko neex def moom daal boo waxee mu ne man daal laa ilaha maa ngi wax laa ilaha illallah kooku xamul luy laa ilaha illallah laa ilaha wax yooyu ñëpp da koy da koy dégaase da nga koy dindi laa ilaha illallah ba pare takk say téere loolu la laa ilaha illallah di jëriñ bokk na ci liñ mën a jariñoo ci mbir mi moo dina ne affaire askan nekkul ne mooy jàllale kenn ci ji bu doon ne askan rek la kan moo gën a foor abu taalib mi aw askan koo xam ne yow yaag yonent bi saw askan direct la ci moom sa srik yaag yaag papa yonent bi ñoo bokk ko kay lu ko gën a lu ko gën a euh, jege te tey mi ngi nii dem na sawara parce que moom yonent bi moo xabaari mbiram de moom abu taalib mii ne moom ma nga sawara bu na ne askan mënta sowe Abu Talib ndax yow askanu jàmbur dana la sowe ku la wax mi ngi lay nax kon képp ko foog ni maanaam aw askan ci la lay jàllale alaaxira mi ngi lay présenté loo xam ni amu ci firnde ci alquran ak sunna foofu askan du fa jàllale kenn moo tax yonente bi sallallahu alayhi wax ko ne wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu nee na koo xam ne ay jëfama ko yeexal mooy dafa def yii ci yàlla bañ bu àggee àlaxira aw aw askanam du ko fa du ko fa jàllale kon yàlla xoolul ay askan xoolul ay askan de xoolul kii arab la xoolul kii ku ñuul la xoolul kii ku weex la xoolul kii séeréer la xoolul kii wolof la moom li muy xool mooy sa jëf sa jëf kon boo gisee léegi ñu ñëw jàpp ne diine ji affaire askan la ki bokk ci askan sàngam moom day daal di tedd day daal di avancé ñu ne ah moom di jàll na ndax askanam sàngam nga xam ne moom dañ naan jàll na ba mooy jàllale sax loolu diine foo la waaye du lislaam bii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andi boobu moom affaire askan du ci dara du ci dara du ci tax a tedd du ci tax a suufe du ci tax a du ci tax a réer Mm, boo askan woo bëgg bokk bokkal teewul man ngaa jàng ba ëpp xam ci nit ñi askan woo bëgg bokk bokkal teewul mën ngaa baax ba doon ko gën ci nit ñi askan woo bëgg bokk bokkal teewul boo diful li yàlla digle mën nga bon ba gën a bon ci nit ñi ba ci sëti yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi nga xam ne ku doon topp seeni maam danga naan maam maam ba àgg ci yonent bi da nga fekk ñoo xam ne ñoo gën a bon kuy bon tey ñoo xam ne sax dañuy dem bay dugg ci ay kii mm, pas-pas yu bon di def ay bokkaale yépp ñu ngi ci kon affaire askan du loo xam ne ci diini jii nit da koy am ñu ne kon daa am valeur kon yii ñuy gëm tey naan diw de ci askan sàngam la bokk diw moom ci askan sàngam la bokk kon nag kii bokk ci askan sàngam kooku moom noobal lay doon kee bokk ci askan sàngam moom du doon dara kooku ay mbir la yoo xam ne jotewut ak diine dara dara dara ah ku koy wax ci affaire aada bay boo nga waxee ko affaire aada waaye du diine kon it nag bul nangu nag kenn di la ko gëmloo ci turu diine parce que ki la koy def mi ngi lay nax loolu amul loolu amul ci diine bu ko nangu mukk te képp ku ko ci bëgg saxal ci diine nala la wax fu mu ko sukkandiku na la indil preuve du ko am mukk beneen mbir moo di ne àndandoo bu bon baaxul ànd ak ànd ak ku pas-pasam bon it baaxul parce que dalay dalay xëcc ci bokkaale ba pare di la ca saxal te bis boo ci naroon a génn mu mu mu mu téye la ca xam nga abu taalib mi tey jii lan moo tax mu nekk sawara ñu koy lakk foofu lu dara lu dul ñaari àndandoo yu bon yi ko ñëwal bi muy bëgg a faatu muy abu jahlin ak abdullah ibn abi umayya yonent bi di ko wax naan ko wéetaleel yàlla weddil bokkaale ñoom ñu naan ko saxal ci bokkaale sax ci ba mu topp leen ba tey mu nekk sawara tey coono ba muy daj ak sawara na mettee mun na faa dëkk ba faw te du fa jóge dara waralu ko lu dul ay àndandoo yu bon kon yow rikk waay bala ngaa wut ñooy àndal nanga seet ñi ngay àndal ndax seen pas-pas baax na wala déet ndax ay nit lañ yoo xam ne dañuy gëm ay bokkaale wala déet ndaxte bis boo àndee koo xam ne yooyu la gëm bis boo ci bëggee jóge da la ciy saxal di la ko rafetalal di la ñaawalal wéetal yàlla ba nga des ca te boo ci faatoo loolu musiba la bokkaale foo ci faatoo rek yàqu nga ba faaw ba faaw ba faaw te kenn du la mën a defarati moo tax àndandoo bu bon rawatina àndandoo bu xam ne pas-pas ay bokkaale la gëm kooku musiba la dalay alak musiba la ci nit ki kooku dem ànd ak ku gaana sax a ko tane gis nga gaana boo àndeek moom ni mu lay wàllee gaana gi ngaana gi loolu moo gën parce que kii da lay wàll bokkaale te bokkaale moo gën a garaaw ak ngaana yal nañu yàlla musal ci ngaana bokkaale gi yépp bokk na ci it ni ñu xamee ci ne li ëpp ci liy baare nit ñi ñi koy def au lieu que ñu indi la layu leer ci alquran ak sunna waaye dañ naan la lii mooy lifi maam yi nekkoon dañuy sàmm li maam yi nekkoon dañuy défendre li fi maam yi nekkoon affaire maam la ñuy la ñuy la mbubboo di woote ci ay bokkaale di woote ci ay bidaa di woote ci ay mooy yàlla yiñ lay wax yépp naan la moom di la ci woo tamit bokkaale wala bidaa seetlul fañ koy teg mooy suñu maam wala maam diw maam yi daal moom la ñuy mbubboo pour kii léegi foofa ñaari mbir rek am bu dee ne maam yi ci loolu lañ nekkoon maam yi dañoo réeroon kon bu dee ne lii muy woote bokkaale la mu leer naññ ci alxuraan ak sunna ni bokkaale la mu leerit ne maam ji muy wax ci la nekkoon kon maam jooju daa réer waaw léegi nag maam ju réer nuñ koy toppe moo tax yàlla tontu leen ne awalaw kaana abaahum laa yaqiluuna shay'an wala yahtaduun xanaa seen baay yooyu nekkul woon ne duñ xelul dara te duñ gindeeku parce que ñoom it ñi ngi woon ci bokkaale ya kon bu dee affaire maam ji moom leer na ne moom it ci loola la nekkoon comme nii Abu Jahlin doon wax ñooñu ñoom seeni maam dañoo réeroon parce que ci bokkaale lañ nekkoon bu dee ne maam ja nekku ci woon moom mi ngi woon ci wéetal yàlla gu leer kon moom mi ngi dóoral maam ya ndaka la maam ji nekk ci wéetal yàlla gu leer moom mu ñëw di wax na ci bokkaale lañ nekkoon kon foofu moom imma maam yi ñi ngi woon ci cànkute wala moom mu ngi leen di duural moo tax bu la kenn dugal ci benn pas-pasu bokkaale ba pare di ko sukkandikoo ci laa yone lii la maam yi nekkoon ndax kat bokkaale moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekku ci woon kon nag maam yi bu dee dañ cee nekkoon ñoom dañoo wuute woon ak yonent bi bu dee nekkuñ ci woon kii taxaw ngi leen di duural noo ko ciy fekkee loolu du yow nekkal ci li yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon mooy wéetal yàlla wet di lépp lu ñuy bokkaale yàlla nañu yàlla musal ci àndandoo yu bon yàlla nañu yàlla musal ci woote képp kuy woote ci bokkaale ndax kat dañuy dugalal aw xeet sawara de tey xoolal abu taalib dugg na sawara ndax wootekatu bokkaale moo ko gañee tey bu duñ doon xool suñ xeet yi tey woote katu bokkaale yi ñi ngi ci société bi bari fi bay bëgg a dee ñiy woote ci tawxiid ñiy woote ci wéetal yàlla fu ñu waxee ñee ñëwaat wax nii gis nga abu jahli nag gaay waayam ji ni ñëwee ngir dugal abu taalib yonent bi ñëw di wax ñii même ñuy woote ci bokkaale ci jamono ji même soo fu waay waxee ak wéetal yàlla ñoom ñu taxawaat wax ne weddi leen ko nekk leen ci maam yi nekkoon kii li muy wax day kontar kii li muy wax nangam bu ko defee noonu la ñuy baare nit ñi ci yoonu yàlla baare leen ci wéetal yàlla ba nit ñiy faatu ci bokkaale toujours toujours toujours toujours yàlla nañu yàlla musul ci woote wootekatu bokkaale day yàq ab société waaye day day da dañuy fopp nit ñi di leen wommat di jëmi sawara yàlla nañu yàlla musal ci ci képp kuy woote ci bokkaale yàlla nañu yàlla gindi teg ñu ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon barakallahu fikum ahsana allahu ilaykum والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربي صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا